waaw ah, asalaamaaleykum wa rahmatullah asalaamaaleykum sunu mbokk yëpp mbokki waa géwul nekk ci dëkk bi ak ñi nekk ci biti dëkk bi nekk biir senegal ak nekk ci bitim réew ñeen ñépp ñu leen di nuyu di leen wax asalaamaaleykum wa di di leen sant balay émission bi di sore di sant ñëpp commencé ko ci waa géwul yëpp di sant tamit ñëpp ñi xam ni fas yéene nañ euh, déglu sunu kàddu bi wala ñu seetaan vidéo bi di wax di euh, conférence de presse bi ñuy defaat ni wolof moom mooy wax ni weddi du ragal dindi tuuma la Alxuraan aussi ñëw si te Badou Gaye doon ma ko fàttali sànq rek ci suuratu Hujuraat yàlla di wax ne yaa ayuha allazina amanu is jaakum faasiqun bi naba ba fatabayanu maanaam mu ne bu fekkente ni kàccoor parce que kàccoor sax moom moo gën a tuuti ci ni mu ko waxee wala boobu bëggee dëgg-dëgg mu ne bu fekkee naafiq am na lu mu indi ci xibaar nangeen ko leerlu comme am na ñu wax ci gestion conseil municipal bu géwul wax ci monsieur le maire bi jiite conseil bi mu nekk ay wax yoo xam ni am na ci yoo xam ni wax yu tegginuwul am ci wax yoo xam ne jàpp dañ ne du noonu day baax day jaadu ñu ñëw toog leeral ko leeral ko askan bi ba ñu xam dëgg-dëgg nan la nan la demee bu ñu dégloo li ñu wax déglu ñoom li ñu wax nit ñëpp am nañ seen xel di analyser di xam dëgg fan la fan la féete donc loolu rek moom moo indi euh, jataayu tey bii nii euh, ci njaal maa ngi doon wax ne ñun nag ñun ñu fi toog nii ñëpp ak monsieur le maire. kenn xam bunu ci ci ci saaga wala ci wala ci xaste surtout nag ñu seex ko ak ay doomu géwul dañuy jàpp ni géwul ñun ñëpp benn lan ñun ñëpp benn famille lan ku fi nekk am na ku jóge sa famille sëy si beneen famille loolu moom moo tax ñu tere suñu bopp wax benn kàddu boo xam ni day euh, indi ñagas ñagas ci ay digg ci ay diggante waaye daal ñi jot a wax man dama leen di renvoyer rek ci lu benn philosophe waxoon moroomu philosophe am bu ko waxaloon lu mel nii mu ni woon de tome ni mes vers ni ma prose ne diront mot parce que il m'a fait trop de bien pour en dire du mal et trop de mal pour en dire du bien donc ñoom loolu lañ leen di wax foofu rek la di yem ak ñoom <laughs> ñu dem <laughs> gëstu gëstu ko donc loolu moom mooy sababu waxtaan bi di ñaan yàlla ci kàttanam mu kàttanam ba li fi wax lépp nekk wax bu yiw wax bu jaadu wax boo xam ne kenn du ko dégg ba am leen loo ci wax donc loolu daal lañ doon ubbee di leen sant yéen géwul aar bi sàkku aussi ndaje bi bu baax te di rafetlu aussi seen liggéey jërëjëf. asalaamualeykum man la ba Sall di conseillère municipale ci commune géwul di membre ci Haut Conseil des collectivités territoriales départementales Kébémer ci biir municipalité bu Géoul présidente commission santé laa fa maa ngi nuyu képp ku yeewoo géwul ak li ko wër comme ni ko Abdourahmane waxee ak ñi nga xam ne ñu ngi ci biti Géoul di leen nuyu ku ci nekk ci turam ak santam di wax ni tey suñu teewaay fii dara waralu ko lu dul li mu wax rekk teggi tuuma puisque bu ma amee role bu may joué ci biir mairie bii àndante koog équipe bi ñu am benn collaboration bu franche bu ñuy liggéeyee defe naa bu wax jibee bu ma amee lu ma ci xam ba pare ma noppi day mel ni je suis walla kon damay def liñ naan le silence parfois il est synonyme de peur te defe naa fii kenn ragalu fee wax li ñu nekkee man bokk bu ma ci bokkee ñuy liggéey di dem di ñëw di lijjanti suñu coono nekk ci suñu mën-mën nekk ci suñu doole dem ci suñu alal dem ci suñu jot dem ci bu wax jibee ñu dégg ko defe naa war nañoo mën def la part des choses di wax ni waa géewul daal comme ni ko Abdourahmane waxee man tontuwuma kenn puisque daa am loo xam ni fu mu xajul bu ko fa xen xajale ñun ñëpp ñoo bokk géewul te defe naa kuy œuvre rek ci ngumba gii rek lu baax rek moo la tax di def

donc maa ngi nuyu ñëpp di sant ñëpp di gërëm ñëpp te di ñaan yàlla yàlla defal jàmm ñëpp si àdduna bi surtout nag euh, doomu Géwél ak fu mënti que ça soit ku nekk Sénégal ak ku nekk extérieur c'est vrai c'est rare que ngeen may gis euh, devant les caméras mais parfois en fait il le faut parce qu'aujourd'hui je suis en fait deuxième adjoint au maire et de facto, je suis comptable de tout ce que la mairie fait, en bien comme en mal. Heureusement que Abdurrahman euh, va revenir sur ça. Euh, la mairie de Géoul, tey xëy na euh, li en fait nit ki mënul xam boppam tant que comparé woo ak ñeneen cela veut dire qu'aujourd'hui à chaque fois par exemple nous on est fier euh, dans les journaux, dans la presse en ligne, on n'a jamais indexé euh, la mairie sur quoi que ce soit. On n'a pas de scandale. Aujourd'hui, pendant en fait 5 ans, 6 ans, on vient, on nous dit que fait la gestion est chaotique, la gestion est catastrophique. Donc, à chaque fois, fait, euh, le titre de Bimamé dans la presse, les gens appellent de partout on pensait que Géoul, c'était un exemple de gestion, mais ce que les gens ont dit, donc euh, ça prouve le contraire. Mais il y a trop, par exemple, que man li may ñëw sax conseil municipal ça je le dis bariwul mais effectivement nekkul ni ku ñëw rek yaay donc man li may liggéey Abdourahmane amul lu mu def te duñ ko diisoo monsieur le maire également ak ne je suis pas là pour dire que li lay def mais quand même laaj na nag tey jii bu nekkee ne par exemple tey jii en fait dañ la waxal loo xam si ni tey ñu ni par exemple maire Géoul gestion bi baaxul bay demande délégation spéciale sant nañ yàlla sax parce que Abdourahmane wax na ko keroog buñ amoon délégation spéciale dañuy noppal sax foofu ñun mais du objectif par contre parce que li ñu œuvré fii nii nañ def benn étude par rapport en fait à toutes les communes de la région du département et même plus loin par rapport en fait aux communes du Sénégal ñu xool ba xam Géoul ban position lay jël. Donc, euh, moi, c'était juste en fait pour dire que ni, euh, quand par exemple aujourd'hui tu es, euh, tu es fait partie d'une équipe, quand en fait on est équipe donc y là également pour nous, pour solidaire, parce que moi je suis comptable de tout ce qu'on fait depuis le début jusqu'à présent. Donc, lors moo que may dinaa ñëw teewee conférence de presse bii donc de réaffirmer par exemple en fait ma solidarité à toute l'équipe municipale, le bureau municipal en premier, mais également à l'équipe municipale. Parce qu'aujourd'hui, c'est même en fait insulter les conseils municipaux qui, les conseils municipaux qui sont là. Parce qu'aujourd'hui, si en fait ils disent que donc conseil municipaux ils ont que que que signé ça m'a fait rire quand même par contre parce que ça me tient à cœur donc à trop, trop, trop trop trop trop trop trop trop, trop, trop, duñu xas kenn duñu saaga kenn ñu wax kenn lu ñaaw parce que xaju fi suba tey ñu ñooy nekkaat ay mbokk lañ ay lépp lañu donc nañu wax rek lu rafetal maintenant bu ñu demee ne bu war toog nag élection ku bëgg nag mën na laaj ku yàlla jox ñu xam ne noonu la parce que après ñu ñooy nekkaat ay mbokk ñooy nekkaat ak lépp donc lu mu metti metti metti metti metti critique moom nit il mu koy am parce que yonent moo gën ñëpp te chaque fois di ko doon critiquer pour autant mais en effet, que nous avons ci des critiques constructives wala des xam si dafa am lu am lu mais dire que par exemple nous avons def ay dañuy dañuy war jaay ay terrain dañu wara def def def Abdourahmane je pense qu'il est mieux placé pour revenir en détail donc c'était justement pour montrer que ma solidarité au bureau municipal euh, en tête monsieur le maire Abdourahmane Diop monsieur le maire euh, Khalifa Dia donc mais également tous les conseillers municipaux ki abat un eh, travail extraordinaire il faut le souligner donc loolu la won ci may wax ma ngi leen di di leen sante di wax ne nak également yalla yalla def jamm ci géewul yalla yalla dakal mbass bi mbass bi am ci dëkk bi donc merci beaucoup. ñu ngi leen di remercier ci kàddu yi am na solo macha allah monsieur le maire ñu ñëw ci li nga xam ne mooy tax muy kàddu yoo xam ne déggoon nañ ko fii ci ay jamono nit ñi di ci wax muy kàddu yoo xam ne ñu jóge woon ci monsieur le maire. xam ñu ko déggoon ne ñaawul kàddu yooyu ba def ci ay conférence de presse am ci luñ ci wax yow lan nga mën a wax ci kàddu boobu nga xam ne monsieur le maire kon ci ci ci fi ci ñëw ba mu am nañu coow yoo xam ne ñu ko def waaw jërëjëf Alpha kàddu yooyu liñ ci waxoon rek ci conférence bële lañ ci waxaat te monsieur le maire ñëw si politique la nekkoon muy def communication erreur mënul ñàkk erreur mënul ñàkk ñun ñi ànd ak moom ñu ñoo njëkk a souligner yi am ci ci kàddu googu laata ñeneen ñi di ko wax mais nit nit rek la ñun ñëpp yàlla daf noo bind binduñu ci matadi dañuy jàpp moom la mu wax noonu am na ci loo xam ne erreur la waa gil war ko mën a nangul parce que Khalifa Dia bi mu fi nekkee ba léegi ak même laata muy nekk maire Ngoumba Ngewoul ñëpp xam na moom mooy kan kenn mënu ko taxé ci koo xam ni day ñàkke kersa ay ay nit wala muy ñàkke teggin ay nit li am kay mooy ñi jël kàddu yooyu ñoom lañu war a xoolaat ñoom ñooy ñan parce que dañuy jàpp di bu fekkente ne ci société la ñuy wax wala ci diine la ñuy wax nit bu defee lu ñaaw dañu sant muy yàlla sunu boroom nga nëbbal ko bu dee bu dee wax ji ñaaw na même bu dee ci société bi nekk nii dañuy sant tamit nit ñi di suturaalante ñu jàpp ne doomu géwul bu defee erreur ñeneen war nañ ko mën a wuññi ba mu des waa géwul moo ne de am na ci ñu ko doon wax naan day saaga am na si koo xam ne saagaam yéen dégg ngeen ko saaga yu ñaaw yoo xam ne même man yi ko ma ni woon euh, dina wax lu mel noonu ma weddi ko beneen bi mooy jàpp nañ tamit ni yàpp waa géwul weesuwul nga dégg benn wax ka ko wax tuddul turu kenn nga ñëw jël ay nit naan leen yéen la saaga est-ce que du ki wax loolu moom moo bëgg saaga waa géwul loolu yëpp ay question la yoo xam ni kenn ku nekk mën na ci am sa xalaat mais dans tous les ñun di ñu wax monsieur le mooy mbir bu jibee ba pare erreur am ci li njëkk te jaadu mooy nga jéggalu askan bi te loolu def na ko wax na waa géwul neen di ma wax comme am nañu mu metti maa ngi ciy jéggalu maa leen di ñaan aussi ni lu ma wax su nekkee erreur la nangeen jàpp ni lu baax laa ci laa ci jublu woon beneen bi tamit mooy nit kenn du ko jàppe ci wax ci jëf nga koy jàppe parce que même yàlla bi mu wàcceloo fii wax loo woon daf noo jëf loo donc jëfi monsieur maire nit ñi jëf boobu lañ ko war a mën a jàppe nit la koo xam ni lépp lu mu xam wala lu mu am mi ngi jéem def ay pexe pour que indi ko ci géwul ba ñun ñëpp suñu nekki mën a jëm si kanam donc ku mel noonu yàgg ci di ko def sans contrepartie aucune bu defee erreur ñun ñëpp dañu ko war a mën nañ ko woon ko def nga erreur parce que yonent bi sallallahu alayhi wasallam wax dañu woon seen mbokk neen ko jàppale bu tooñee ak buñ ko tooñee saaba yi ni ko nan lañ koy jàppale ci bu fekkente ni moom moo tooñ ñu ni ngeen jàpp ci loxoom ni ko yow yaa tooñ ñun ñu toog fii loolu lañu wax Khalifa jaa ni ko sa communication bi am na erreur comme am na erreur nag erreur dañ koy rectifier te di ci gën a pour ñun di ci gënoon jaadu mooy li mu def waxaat comme na mu ko waxoon waa géwul maa leen di jégalu bu fekkente ne loolu noonu moo wax metti na leen mais ba mu ko waxee ba pare si leen gis ni ñeneen wax nan leneen waaye nag euh, comme li wax nit ku ne daal li nga am rek ngay ngay maye donc wax jooju loo loolu lañ ciy wax di ko ci ñaanal moom it di ko encouragé xam ne nit la comme nit ñëpp amul kenn ku mat ñun ñii dañuy juum ñi koy critiquer ci loolu noonu dañuy juum keneen ak keneen day juum yàlla rek moom moo dul juum yan yan xam nga man comme ni ma waxoon ci njëlbeen bi suñu sa su ma sañoon du ma wax ci kenn ku dëkk géewul fii duñ ci wax duñ ci wax dara géewul bañ na en tout cas ñun nu sommes des géewul waa te ñun ak ñu bëri reconnaître suñu bopp ci mouvement boobu te mouvement boobu ñan ñoo fa nekk xam nga ñan ñoo fa nekk mooy ñoo xam ni. taxaw nañ ci pénc bi tagg xalifa jani moom moo gën ci géwul tey ñoom ñoo ñëw di xas xalifa benn bindukatu arab tamit am na lu mu wax mu ni matxun wa zamm fi makaanin waaxidin lil waaxidin min waaxidin ajabaani mu ni am na loo xam ne lu doy kéemaan la mu ni benn tagg ak benn xas bu jóge ci benn nit jëm ci benn nit mu ni kuy ci benn place mu ne kuy jommi war nga jommi ci lu mel noonu xoolal foofu ñu fa nekkoon ñëpp kenn ko fay wax ku nekk di critiquer xalifa mës nga taxaw ci péncu ngumba tagg ko ñoom ñëpp autant qu'ils sont kon donc loolu ñun mën nu jural dara lu dul sant yàlla parce que depuis bi ñu ko defee ba léegi li tax ñu naroon bàyyi conférence de presse bii nii mooy soutien yi ñu am jàpp nañ ni lool su amul woon duñ ko am ci ay citoyen lambda mais aussi ay kilifa man personnellement amna ay kilifa yu bari yu nek fi ci dekk bi den setan vidéo bi woo nañ ma di ma wax ni li ni bu len ci jaxlé li ni bu len ci jaxlé ba paré di nakharlu aussi kàddu yu ñaaw yu nu tek ci ci ci ci khalifa duma tuddu tour mais ñom den setan vidéo bi du ben kilifa du ñaari kilifa du ñatt kilifa won ak ñeneen ñoo xamni andu ñu won sax ak euh, sunu groupe bi di groupe khalifa ñew daal ni comme ñeek ñom ñoo wax lolu yéen dem leen toog ñun ñëw nañ ànd ak yéen ci liggéey kon ñoom li ñuy def mooy sant leen ñooñu tudde seen bopp géwul bañ naa ñu leen di sant bu baax di leen gërëm ci xéewal yi ñu indil loolu daal lañ ciy wax mais am na ci benn tiitaange wala benn loraange au contraire sant yàlla bu mat sëkk leen si def parce que nag yàlla moom moo ne ko wax bu ma leen di defaral day mën ne damay yàq mais loolu moom ñun ñi nekk fii gën gën nañ ko gëm ci li xew nii macha allah. <laughs> Mm-hmm. Mm-hmm. Mm-hmm. Euh, ba euh, euh, dugg waaw xam nga loolu yéen la rek ñoom dañu wax noonu yéen la yéen nag moom yéene la yàlla na fekk mu nekk lu rafet rek d'abord. Euh, man bi ma leen dégloo ree daf ma jàpp ba pare kersa jàpp ma ree bi mooy ñiy wax di géwul nañ ko yóbbu délégation spéciale day mel na ñoom xeluwunu xeluwunu nan la ñuy yóbboo commune délégation spéciale te amul benn mbir buy wane ni le conseil ne fonctionne pas te ñoom ñu ko doon wax nee naan ñoom ko ay ñu xelu lan ñu jàng lan ñu xam na la ñuy yoree commune nan la ñuy yóbbee commune délégation spéciale te fait, commune boobu mi ngi normalement L'ensemble de ces organes mi normalement. fonctionner normalement nan la ñuy une commune délégation spéciale te amul ben décret bu ñëw ni kat comme élection yi amul euh, wàccee nan mandat wu élu yi donc dañuy yóbbu délégation spéciale donc nous dañ leen di renvoyer waat ñu demaat xoolaat xoolaat sen euh, sen intérêt comme nous ay expert la loolu loolu man loolu laa ciy wax loolu mooy tax ma doon ma ma doon ree mais kerse bi ma xam lan la ñeneen ñi koy déglu te dëkkuñu géewul dafa am image bu ñuy jox géewul te boobu ñun ñëpp lañu koy boole mooy ñii ndax xam nan ñii est-ce que dañuy wax maîtriser nañ ko ñii est-ce que seen yéene sell na ñooñu dëkkul géewul te di xalaat xalaat boobu loolu moo ma loo tax moo tax ñun ñi ñëpp ñu am ci kersa parce que ñun ñi ñëpp ñu nuy woo loolu la ñuy wax ñi ko doon wax ñoom ñooy ñaan am na benn sëriñ bu nekk fii géewul dina seetaan vidéo bi dina ko dégg daf ma woo ni ma mais ki doon wax est-ce que géewul la dëkk man ko géewul la dëkk kay diw la tudd mun ma déedéet ñu doon wax ni géewul géewul changé wul xar kanam géewul dafa lëndëm mun ma ñooñu dëkkuñu géewul man ko pourtant fi lan dëkk de te loolu tamit li may wax di waa ba sur le Saint Coran ki ma ko wax bi ngi dëkk fii beneen bi mooy ci wàllu ñu ne suñu liggéey doxul ba dama koy tënk suñu liggéey doxul xam nga ñun suñu toogee yor liggéey bi dañ naan dafa dox mais loolu doyul nañ joxe ay preuve yu mat comme ni ma ko waxoon keroog géewul euh, commune la comme yeneen commune yëpp am Sénégal 557 commune moom moo fi am géewul nekk ci benn bokk ci communes yi gën a tuuti ci wàllu suuf même ci wàllu limu nit ci ñi gën a tuuti si leen bokk waaw léegi am ay organisme yu ñëw yenn yu jóge ci état bi yeneen yu jóge ci ay partenaires ni dañuy saytu commune avec ak conseil départemental est-ce que seen liggéey sell na mën naa ci citer euh, ministère de la décentralisation dafa jël ay jumtukaay jox ko programme national de développement local ni ko saytul ma euh, communes yi maanaam lépp luy collectivité territoriale est-ce que seen doxalin sell na bi ñu ko defee région par région lañ ko def doo koy def y rapport au niveau national bi fait région de Louga Géoul première commune sur l'ensemble des 55 communes yu yi région bi am résultat est que ARD de Louga vous la première commune te def mais ay la document ni commune région de Louga boo rapport général au niveau national géewul mi ngi ci loowu communes yi nga xam dañ ni ay commune performante lan loolu ñun def nu ko te loolu ay jumtukaay la yu sell yoo xam mi ngi fi ku dem ministère da nga ko fay fekk ku dem ARD Louga da nga ko fay fekk ku dem PND da nga ko fay fekk boo jógee ci loolu 2000 entre 2017 ak 2018 am na lu mat ñetti audit yu fi am ñaari benn partenaire moom moo ko def benen bi benen partenaire mom moko def bi benn partenaire bi def mooy dafa am lu ñuy tuddee fondation Konrad Adenauer benn fondation allemande la ñëw jël Sénégal 20 communes ci biir Sénégal am ay communes yu nekk Dakar am yu nekk Louga am yu nekk Kaolack am yu nekk Saint-Louis en tout cas jël ba mu nekk vingt ñu ni communes yi dañ leen di jël natt leen ba xam ñu ngi liggéey liggéey bu sell waa wala déet 20 communes yooyu géewul ci la bokkoon bi ñu defee seen càmbar dem yóbbu ba Dakar def seen analyse yëpp géewul moo première ci 20 communes yooyu loolu aussi ay résultats la yoo xam ne ci wàllu bonne gouvernance maanaam doxalin bu sell ak bu leer ku dem fondation Conrad Adenauer wala agence Tatan da nga ko fay fekk ñu jóge fa am 2017 ak 2016 waa forum civil am bay seen ben programme boo xam ne coopération luxe développement moo ko financé pour ñu xool def di nga programme de certification citoyenne Madame xool commune est-ce que ñu ngi liggéey wala ñu njëkk def benn audit tuddee ko audit blanc audit boobu bi ñu ko defee ñun ñoo jël première au niveau de la région de Louga et quatrième au niveau national loolu aussi li ñuy wax di ku ci dem forum civil forum civil ki leen teewal Louga Cheikh Mbaye la tudd am nañ ko xam géewul ku dem forum civil bi nekk Dakar aussi da nga fekk résultat yooyu ñu ñëw en 2017 ñu ñu def audit bi réel ñëw càmbar lépp def ay critères ñu def ñeenti critères benn critère bi njëkk mooy critère wàllu efficacité maanaam commune bi est-ce que ni muy liggéeyee efficace na waaw wala déet est-ce que xaalis bi mi ngi dugg fu mu war dugg est-ce que mi ngi dëppoo ak soxla soxla askan bi critère boobu ñu jël ko am ci lu ëpp 80 pour cent soo jëlee beneen critère bi muy équité équité boobu mooy est-ce que li ñuy def tamit amul xàjj ak ak seen bi ñu ko defee ñu am si 50 pour cent 50 pour cent yooyu li tax ñu am ko mooy. dafa am ay arrêté yu ñu waroon jël te jëluñu ko par exemple bu nee jox nañ étudiants yi subvention dana waroon jël benn arrêté alors que à l'époque ñun ñu ngi doon yem rek ci PV yi étudiants yi di indi pour ñu mën leen jox seen kii gis nañ PV bi naam mais ñu ni il faut mu am arrêté ñu am ci 50 pour cent beneen critère bi nekkoon critère participation critère participation mooy est-ce que ñun li ñuy def xam nga ci wax ji gars yi ne leen communiqué wul bi solitaire la mais nan dem laaj waa Forum Civil te forum civil boobu dafa am ñu leen teewaloon fii ci dëkk bi ñi leen ki leen jiite woon mooy Samba saw li may wax ni mën na ko sedd Ali Fall ma nga ci woon ak ñeneen ak ñeneen ñu dëkk ci dëkk bi Mansour Mbaye mi ngi ci woon bi defee saytu est-ce que euh, gestion bi boole na si waa askan bi yëpp dañoo gis ni boole na leen si ba am ñu am 93 pour cent xamul nga lan moo indi loolu mooy géwul danoo am ay conseil de quartier quartier bu ne am na kuréel bu ñu fa teg boo xam ne lu ñuy def dañ koy jàllale ci ñoom ñu waxtaane ko ñu koy doog indi fii waxtaane ko géwul am na ay comité de salubrité maanaam ci wàllu mbalit mi ay kuréel yu taxaw ci quartier yi nekk fa di saytu loolu lan fay tënk moom la ñuy indi fii di ko waxtaane géwul am na lu tudd ay conseillers cooptés maanaam ñoo xam ne du ay conseil municipaux ñu jël leen parce que seen xel rafet na ne fu ñuy réunion ñëw leen toog té di len jox sax kàddu ñom ñuy wax donc loolu moom motax ñi wax ni géwul gestion solitaire la wax deug yàlla xana kay ñom da naan ñom kon ñewunu bok rek waye ñi fi ñew fi li fi nek ci conseil 40 conseil la li fi nek ci chaise ëpp na 40 conseil parce que tout simplement da no bare ñeneen ñoo xam duñ ay conseil ñu leen di wo ñuy ñew ci goor ñi ci jigeen ñi ci mag ñi ak ci ndaw ñi parce que da no japp ni du nek ay conseil wala conseil rek ñom ñoo am xel yalla ñom la dagol wala ñom la nattoo ñu nek ay conseil mais amna na ñeneen ñu am xel ak xalaat bok ci ba terminer ci benen critère bi rek mu jeex mooy critère transparence ba tey ñu ci audit bo xamni wa forum civil ñoko def ñi leen financer di coopération luxembourg luxembourgeoise critère transparence geewul 100 pour cent la ci am est-ce que dañuy def leer na wala leerul bi ñu xaymaa nat ba paré geewul 100 pour cent la ci am lool donc buñ ci yemoon kenn mënu wax ni. Euh, géwul liggéeyanu walla liggéey bi doxul loolu ay audit la yu fi jaar dem ñépp xam ko ku ne war ko mën a vérifier am na ci lu nekk suñu gannaaw ni label ba la ngeen di gis ñu ngi ko jële woon saal yi mu nekk label argent ak lépp li des moom mooy lan li nit ñi war a mën a teg seen bët xam nga boo toogee dëkk géwul nga mën wax ni géwul xar kanamam changé wul man dafa am feneen fu ma lay loger parce que amul géwul ku fiy dugg te doo romb loo xam ne mairie bi def na ko ak côté boo duggee rek côté boo duggee yàlla may nañu lool boo jógee côté Kébémer di nga romb lu mairie bi def boo jógee côté Bandène di nga romb lu mairie bi def nga jógee côté Ngourane di nga romb lu mairie bi def nga jógee côté Louga di nga romb lu mairie bi def te nekk fu woon kon naka lañ mën waxee ni géewul changé wul xar kam

mooy li may wax damaa am kersa daal parce que ay nit ñoo xam ne nekkoon nañ conseil wala ñu nekk conseil parce que ñooñu ko doon wax am na si ñoo xam ni ay conseil lan wala ñu nekkoon conseil xam bu baax liggéey bi ni muy doxee gis nga nit du wax mukk lu mu xamul bu fekkente ni yow jàpp nga ni am-am wala dara njublang moo koy joxe koo jàkkaarloo da ngay defar njublang la. mais mairie Géoul budget bi ñuy voté fii lañ koy vote ci saal bi lañ koy voté fii mu sunu voté ci comme li ma dégg ñu ko wax naan dañuy dem topp ay conseillers ñuy signé seen kër loolu ko wax wax nga lu amul te je défie quiconque bu fekkente ni même conseiller nga waxal ban réunion lañ mës def boo xam dañoo ñëw fekk la sa kër ni la signé fii nga signé mais dafa am loo xam ne ñun ay nawle lan mais man loolu même man su ko bëggee def. war ma mën a toor la mais à bu def wala Badou Gueye boobaa damay jàpp ni ñoom amuñu benn personnalité loolu loolu loolu amul te lépp lu ñu fi voté ci budget buñ ko liggéeyee ba mu jeex dañuy ñëwaat fii daal ni budget bi ñu voté woon daaw ñu ni waaw ñu ni def nañ si nàngam ak nàngam ak nàngam ak nàngam bañ fi nekkee ba léegi xam nga géwul xaalisam barewul xaalisam barewul suñuy investissement lu ci ëpp ay ressources de transfert la ñuy am mais luñ ci def dañ koy voté fi suñu que day nek lu tek suñu loxo quelques exemples Si vous ne comme né woon kébé maire bo fay di nga romb lu mairie bi def foray bi ngay romb fi ni commune ci budget commune nous, la ñu réaliser ko ba tek xama bok ngewul commune est-ce que courant. Hmm? amul woon courant déedéet ci budget commune Géoul lañ fa yóbboo courant yóbbu fa ndox yóbbu fa ndox loolu waa Géoul doon seetaan li mën nañ ko mën nañ ko mën nañ ko seede nga dem ci marché bi marché bii ci raay bi nii ci budget Géoul lañ ko defare booleem bâche bi fa dekk mbaar yi fa dekk noonu ak toilette yi ñu fay tabax di ci budget Géoul la bokk récemment ren ji terrain basket bii ci budget Géoul lañ ko tabaxee ak ak mun naa lim bëri na fu am ndox ci commune géwul bi ci budget géwul bi lañ ko defee te lépp ay nit ñooy ñëw toog ñu jël ni leen li ngeen nu voté loon fii la dugg géwul bi ñu fiy ñëw ci équipe bii 2014 dañ fay fekk équipe bi demoon te am na ku bokk ca conférence de presse boo xam ci équipe boobu la bokkoon xam nga ñaata la ñu fi bàyyi loon 9 mois d'arriérés de salaire. agent yi kenn fayu leen pendant neuf mois ñun bi ñu ñëwee doo nekk di liggéey ba tey amul benn agent bu mën a taxaw fii ni mairie Géoul yoroon na ko un franc te boobu même ñoom adjoint au maire yooyu nga xam dañ fee nekkoon te nekkatul dañ leen continué woon di leen fay. Thank you.